depuis 2018 dañu lancé benn projet d'esphère boo xam ne li ko tax a vraiment jàppale suqali jigen ñi mais ci ban secteur secteur énergie renouvelable donc depuis 2018 tan nañ ci 200 jigen 200 groupements de femmes yo xamni defal nañ leen ay formation yo xamni non seulement dinañ am capacité mais mën aussi développer ay projet ba réellement euh, indi fi ay infra indi fi ay euh, projet yo xamni dina leen mën tax euh, ñu suqali seen njaboot am si vraiment développement économique pour nous. donc euh, lan la ñu def ñun à part euh, renforcement de capacité aussi nous euh, ngi liggéey ak crédit agricole bo xamné pour bis bu ñu soxla xaalis bu leen di aussi pour ñu lancer un projet aussi def nañ ko li ñu indi nag fan yi moy pose première pierre infrastructure solaire yi Kaolack dina am trois mini centrales ak quatre plateformes yo xamné jigéen dinañ ko mëna utiliser pour vraiment parce que ñom ñoom it itam bi leen accompagner dañu proposer ay projet yoo xam ne vraiment euh, am am am am na solo boo xam ne bis buñ leen jàppalee ak infrastructure solaire yi dinañ mën a jàppale seen njaboot jàppale communauté bi mais li ci gannaaw loolu mooy dañu xam ne jigéen euh, dafa am njariñ ba nga xam ne boo ko jàppale jàppale nga njaboot gi yëpp di nga jàppale éducation di nga jàppale santé te li ni li leer ba leer mooy changement climatique problème yëpp yi ñuy am bis bis si jëlee jigéen yi jox boo jàppale dalay leer que ni euh, dinañ ci dinañ ci taxaw parce que jigéen ñi fu nu toll fu nu dugg jàmbaarte rek lañ ci lañ ci def projet bii nag du du du Kaolack kese ñu ngi koy def itam Ziguinchor Kolda ak ak ak Sédhiou Euh, donc euh, te fini ñu particulièrement ak le gouvernement du Sénégal parce que nous ñi ñu à travers maire à travers préfet mais mais mais aussi le ministère du pétrole et des énergies renouvelables le ministère de la formation euh, professionnelle de l'emploi et de l'artisanat mais aussi chambre de commerce bi déroulé dérouler formation yi nous nous ci module yi ko ANER ak aussi nous ñi techniquement donc li ñëpp la ñëpp la parce que li leer ba leer moy ñëpp xam na ne jigéen ñi sen taxaway bari barewul si énergie renouvelable way bu len jappalé len ci digal liggéey bu rafet. projet bi dafa nek lo xamanteni dañ ci lëkkaloo ak ak plan international pour euh, installer ay mini centrale ak ay euh, plateforme yo xamanteni day tax jigen ñi mëna yëngu ci seeni yëngu ak électricité bi nga xamante ni moom lañ ciy soxla. waaw ni ñu ko dimensionné dina permettre ñu satisfaire li nga xamante ni mooy wu jigéen yi mais du yam ci loolu rek dañuy yokk dimensionnement bi ba nga xamante ni dëkk yi nga xamante ni courant bi accès gu fi te dama bëggoon foofu tamit ma taxaw fi tuuti pour wax ne projet yi ñi am dinañu fexe ba fii ak 2025 dëkk yëpp dina am courant donc liñ fay def ni dina permettre jigen ñi ñu def seen activité yenen activité ci xat ñu def ko ci ba nga xamanteni kër yi ak euh infrastructure yi nga xamanteni moy docteur fi docteur yi nek wala école yi ñu jéem set naka lañ leen ci bolé ñom tamit la bu baax ndax euh, liñu plan defal ndax loolu am solo la ndax dafa indi benn projet boo xam ne dafay tax jigéen ñi mën demal seen bopp naka la ñu demee seen bopp dafa leen tabaxal loo xam ne dañu am courant dañu courant bu ko defee seen activité yi nga xam ne ñu ngi koy bëgg a def ñu mën ko def exemple ko ma jox exemple rek boo bëgg a def couture wala nga def teinture wala nga bëgg a def benn activité da nga soxla courant donc lii nag da leen di indil courant bi nga xamante moom moo leen mën a permis liggéey donc dana tax ñoom ñu mën a demee seen bopp mais dinañ jëlee xam-xam ndax day def ay formation information yoo xam ni day tax ñoom ñu gën développer seen xam-xam ci liggéey yi nga ni moom la def foofu

mooy partenaire technique yu mel ne ANER ak mais aussi banque agricole bi nga xam ne moo nar a accompagner femmes yi donc loolu am solo la. gouvernement Sénégal comme ni nga xamee xam nga boo boo jëlee par exemple partenaire yu ku mel ne ANER wala mais xam nga nguur gi la donc loolu aussi nguur gi dañ leen ko mettre à disposition pour que mu accompagner femmes yi techniquement ci liggéey bi nga xam ne ñoom nañu liggéey sur le terrain. di bëgg ci rek ndax euh, projet bi commencé na depuis 2018 ñetti at a ngi nii dina durer juróomi at. Euh, làq nañ ñetti at yi yoo xam ne nii euh, jàpp ñu ngi jàppale jigéen ñi ci naka nit ki boo koy jox ay jumtuwaay euh, da nga koy former ba mu mën a jëfandikoo jumtuwaay yi hmm. loolu la projet bi di def boobaak léegi ànd ceeg mairie bi nag ndax ñun ñoo ko sàkku plan international dañ koy gërëm li tax ñu koy gërëm mooy du waalo gii rek la la tànn def fi projet bi am na yeneen juróom-ñaari village yu dul bii muy juróom-ñett ci biir commune bi yoo xam ne ni plan daf leen di accompagner euh, tànn ci nag ñaar muy waalo gi ak Ndengler Mbuubeen ñu ñëw fi démb pour xool site yi nga xam ne fi lañ war a installer euh, centrale solaire yi ànd kook seen i technicien ànd koog ñun ñii boo gisee ñu tànn ñaari dëkk yooyu c'est parce que jigéen ñi fi ne ci ñaari dëkk yooyu dañoo am parlo mm-hmm. bu rëy a rëy énergie itam bu bu amee dama jàpp ne li des fi mu ne nii mooy fexe ba ñii fi dëkk am nag capacité te ñu ngi leen di capacité pour vraiment ñu mën a téye li ñu li leen jox nii loolu daal mooy surtout si maa maa ngi gërëm ñëpp di gërëm plan di gërëm nag ñi leen accompagner muy Union européenne ak bépp ak ministères yi ñoo ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñu ngi ci suñu wet euh, su naroon son itam sonn sonnatuñ ndax nag ñu ngi ñuy jàppale bu baax a baax. liggéey boo xam ne dinañu mën a jëriñ. waaye ñàkkoon courant boo xam ne dañu mën a def transformation ba mun koo yóbbu jaay ko fi ñu mën a jaay loolu moo ñu manqué woon. kon bu ñu toogee tey plan indil ñu ko dañuy sant yàlla rek ndax yaakaar nañ ne nañ ci am yokkute dina yokk suñu koom-koom dina wàññi tamit suñu néew doole ci dëkk bi.